di jottali ay nuyoo ak cant ak i ngërëm yu bàyyi koo fi moom jëm ci Cheikh Modou Mountakha mi nga xam ne moo di jëwriñam di ko ñaanal yàlla suñu borom yàggal ak dundam te wéral ko moom njabootu sëñ Tuubaa gépp ba naal yi mu am ci liggéey sëñ Tuubaa bii mu def si lu kawe njortam te ànd ko taalibe yépp sëriñ wax ne mi ngi jottali ay cant ki ngërëm ak i nuyoo ak ziar mu jëm ci mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi waaye nag di jottali ay cant ak i ngërëm akub ziar mu jëm si mboolem njabootu boppam gi di njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ñi nga xam ne ñoom la bokkal maam Cheikh Ibrahima Fall ñuy ay rakkam di ay doomam di ay sëtam di taalibe yi kenn ku ne ci ñoom la nga jàpp sa digg ak moom. mooy ndono la nga xam ne moom la fi Cheikh Rafal bàyyi rek muy am yitte doon ab taalibe rek di teewlu ndigali sëñ Tuubaa yi di ko jëfe nam ko bëgge yàlla nañ ko yàgg ànd ak ñoom ba sëriñ bi di yàgg koo am ni nga xam ne noonu la ko sàkkoo jataay bii nag li ko waral mooy ndigal la loo xam ne mu ngi bàyyi ko sëriñ Amdi Fall mu sëñ Modou gannaaw ba nga xam ne jotoon na ndigal ci jëwriñam ji Cheikh Modou Mountakha muy ndigal yoo xam ne day ndigal yu tegaloo ñun ñëpp ñu teewlu ko bi si jiitu woon di sàmm war may Touba ndigal loolu li nga xam ne sëriñ bi yeesaloon na ko si jëmmam ji ak njabootu Cheikh Rafal gi xamal ko ne ko dëkk bii kat naka jëkk kaaraangeeg yoon wi mooy maam Cheikh Ibrahima Fall kon nag fa nga xam ne foofu la ko sëñ Touba bàyyi woon rek fa laa ko fa yéene delloo. muy lépp luy kaarangeeg dëkk bi teg naa ko ci loxol maam Cheikh Ibrahima Fall nga ànd ko ak njabootu Cheikh Fall gi ngeen wattul ko sëriñ Touba ndigal loolu yi ba mu ba ko Serigne bi jotee danoo daal di sant nu daal koy séddoo jottali ko mboolem ñi mu bokkal maam Cheikh Ibrahima Fall boobaak léegi nag ñu ànd si di si dox di si xalaat ngir bëgg li nga xam ne moom la si sëriñ bi jublu mu am ko nanga xam ne noonu la ko bëggee loolee mooy sababu. diir bii nu toog te dégguñu fenn ni soobu nañ ci liggéey bi dëgg-dëgg waaye nag tey jii nag ñu am ndigalul euh, ñu tànnal ñu bis ñu war see soobu muy dibeer jii ñu jëm to tombeek bis bi nga xam ne si la ñuy jëmbat garab yi xam naa daañu si dellu si léegi si ndigal yi kon nu xam ne bis ni tey am nañ ndigal ci sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda mu bàyyi ko Cheikh du Muntaxa ngir nu tabbi nag si liggéey boobu yi nga xam ne mooy sàmm wormay dëkk bu sëñ Touba bii di tuubaa te nga xam ne ñun ñëpp fi lañ ne te amul luur moom ni nu koy sàmmee nag waxtaane nañ ko nun ñëpp nag ba xam ko li am solo daal mooy képp ku ñuy déglu xam ne foo mën a bokke si yoon wi xam ne ndigal loolu li nu sëñ bi santoon tàbbi nañ si bis tey incha allahu dimaas muy dibéer ji ñu jëm danañ ko danañ ci soobu tàmbali ko ñi nga xam ne noonu lañu ko sëriñ bi digale ñu fas yéene koo jëfe noonu ñuy sàkku si ñi nga xam ne ñoo jóg di dem ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy fekki kenn ku ne si ñoom fexe ba li sëriñ bi bëgg na ko sëñ bi bëgge mu amee ko ni ndax li nu gënal day moo doon du nu jóg mukk di fekk fenn lu nuy dindi buñ sañoon bala noo agsi kenn ku ne la nga jàppoon te bokk te bokk si loo war a bàyyi nga bàyyi ko bala noo agsi fi yow ndax nun ñëpp jaayanteeg sëñ Tuubaa rek moo nu fi indi te moo nu fi bàyyi kenn ku ne la nga diggeeg sëñ tubaa mooy loo ma digal ma def ko loo ma tere ma bàyyi ko te sëñ tubaa lim ñuy digal njariñi kese la te njariñ yi ñun rek a ko moom kon nuy sàkku si mbooleem koo xam ne yaa ngi dëkk si dëkk bii di góor ak si jigéen waaye rawatina jigéen ñi nag ñuy sàkku si ñoom li nga xam ne mooy bëggug Cheikh du Mountakha gi mooy nu méngoo ak ay taalibe yoo xam ne taalibe sëñ tubaa lañ képp ku nu gis doo am sikki sàkk xam ne ñii njabootug sëñ Tuubaa la nu fexe ba mel noo ne mooy nu wan ginnaaw lépp loo xam ne bokkut ak war may Tuubaa lépp loo xam ne day wuññi war ma ji lépp loo xam ne da koy day xajamal lépp loo xam ne day ñaawal loolee nu fas yéene ko wan ginnaaw te doyloo sëñ tubaa mi nga xam ne moo tax ñu bàyyi ko ndax nit kat boo joxee sa bopp ka nga jox sa bopp dalaa doy te da nga ko war a doyloo kon nu doyloo sëñ Tuubaa si jox gi nu ko jox suñu bopp fas yéene li mu nu digal nu def ko loola la sàkku si mbooleem ñi nga xam ne ñoom la ñu jóg jëm si ñoom muy góor ñi ak jigéen ñi kenn ku ne li nu lim ci xët wii téere bii ne sëriñ bi dafa bëgg nu won ginnaaw loolu ku si nekkoon nga fas yéene ko won ginnaaw ku si nekkutoon nga fas yéene bañ saa jaar ñu ngi sàkku si taalibe yëpp nga xam ne seen yaakaar génnul sëñ Tuubaa loolu yi ñu taxaw si ba bu nu agsee fi ñoom sax buñ fa fekk lu nuy lijjanti loola moom la ñuy sàkku si ñoom dinañ ko yaatal léegi su ko defee ñëpp xam ko yaakaar naa bokkoon na si li nga xam ne mooy xeeti politique sëriñ bi wax ne bëggatul ñu def ko Touba ñu bàyyi ko lu jëm si wàllu yëngatu politique mooy ay ndaje politique ay mitin ay ay ay ay réunion yooyu yëpp ba si bureau de vote yi nga xam ne moom moo sàkkaloon boppam nu nu nu nu nu nu dindi ko bañ ko fee def loolee ñun ñëpp ñu fexe ba sàmmonteeg loolu ba bu nu ko gisati ci Touba. bi ci dolliku di ñaareel ba mooy waggar gi nga xam ne war nañ koo waggar baatub sëñ Touba bi ak njabootug sëñ Touba gi ak baatub mboolem koo xamante ni kii këru diine nga yor. te nga xam ne ki koy def mu ngi si biir dëkk bi di Touba mooy ñu ñu jox ab cër bu mat sëkk njabootu sëñ Touba gi waaye jox cër bu mat sëkk gépp kër goo xam ne kërub diine la te nekk si réew mi wala si bitim réew képp koo xam ne kii daal yaa ngi tuddoo yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi lay sëñ baa ngi sàkku bu kàddu gu ñaaw wala jëf ju ñaaw walla lenn lu ñaaw bàyyi koo si ku dëkk tuubaa di jëm sa moom sëriñ baa ngi koy sàkku si murit yëpp ñu taxaw si ba dara lu ñaaw bu mu bàyyikoo ci ab murit jëm si njabatug sëñ Tuubaa gi waxatuma laa keneen koo xam ne danga bokk si kër diine yi nga xam ne ñoo nekk si réew mi beneen bi mi ngi doon lépp loo xam ne bépp forme jëfandikoo bu ñuy jëfandikoo bërëb yi si Touba si anam yoo xam ne du anam ñu tege si aw yoon mi ngi mel ne loolu day tàbbi si liggéey bii nu sëriñ bi doon liggéeyloo rek bu yàggut muy si gaar ba ak si marché bi ak si corniche bi muy ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo yoon wi ak bërëb yi nga xam ne ñëpp ko séq ak tëli bi ak marché yi si anam yoo xam ne dëppawul ak la nga xam ne mooy yoon mooy nga ñëw ba si aw yoon nga def sa cantine wala nga teg wala nga def ko si mbedd mi wala nga jël sa atelier wala sa garage def ko si mbedd mi wala nga tabax sa kër ba mu génn ba sa biti nu mu la soobee lépp loo xam ni moomoo ko daal bokkul ci sa moomeel ci liñ la jox loolee nga bàyyi ko ak kika moom muy sëriñ bi su ko defee lam sa bëgg moom moo ko xam mu def ko sax loola sëriñ baa ngi bëgg bu sa kenn tàbbi ndax képp ku ko def incha allahu danañ ñëw euh, dindi loolee. beneen bi mooy gépp jëfandikoo gu ñuy jëfandikoo lu xeetoog am tëgg wala lu xeetoog ay yëngatu yu jëm si li ñuy wax misik ak yu mel noonu si xew yi ak si kër yi yëngutu yooyu nga xam ne day wowal ab xol yàlla bëgg ko yonti bëgg ko sëñ Tuubaa bëgg ko sëriñ bi nee na nu moytu ko sant na nag njabootu Seera Faal gi fépp fu ko gis wala fépp fu ko dégg nu dem fexe ba loolee jóg fa beneen bi si dolliku mooy jaay ak jëfandikoo lépp luy xeetu sàngara ak lépp luy xeetu am tux moo xam lu ñuy tux la wala lu ñuy naan te muy soppi euh, xelum doomu aadama sëriñ baa ngi sàkku képp ku koy def nga bàyyi ko képp ku koy jaayit nga bàyyi ko te jaay ñi koy jaay sax ñoo jiitu ndax bu nu ko jaayut duñ gis ku ko jënd kon nag loolu sëriñ baa ngi sàkku képp ku ko doon def si dëkk bi nga bàyyi ko loolu bokk na si li nga xam ne euh, ndigal yi sëriñ bi di wattuloo njabatuk maam Cheikh Ibrahima Fall gi ñu war koo taxawu beneen bi si dolliku mooy lépp lu jëm si wàllu am po moo xam ne pom pom pom pom nappantu la lu mel ne ay xeeti carte ay xeeti eh, mi wala ay xeeti eh, loterie wala ay xeeti damye wala ay xeeti mariage xeet yooyu nga xam ne yooyu nga xam ne day wowal ab xol di soril nit boromam yooyu sëriñ baa ngi sàkku nu moytu ko waaye sant na njabootu Seera gi ñu dimbalante ak murit yi ngir nu mën ko woon ginnaaw ba fawu beneen bi si topp mooy lépp lu jëm si col gu yiwadi ci góor ñi ak si jigéen ñi waaye nag rawatina si jigéen ñi ndax si ñoom la ëpp lañu koy gis mooy col yoo xam ne say cër day nekk si biti koo dajeel mu teg bëtam te loola di lu xaraam di loo xam ne sëriñ bi yàgg na koo tere si dëkk bi yàgg naa sàkku nu won ko ginnaaw te ñun ñëpp ay taalibe lañ koo si ne doo murit nga jëflante ak moom te li nga xam ne mooy tax nu doon ab murit mooy nangu ndigal li te jëfe ko loolee sëriñ bi sonn na lool si digle ko ak di tere kon nag sëriñ bi bëgg njabootu Cheikh Ibra gi taxaw temm si ndigal loolu lii fexe ba nu sàmmanteeg moom mooy lépp luy col gu yiwadi sol lu gàtt wala sol lu xat wala sol lu xar nga xam ne boo rombee ñuy gis saw yaram wala bàyyi sa boppum neen bu dee da nga see def ay lit wala ay mees yu ñu yokk loolee sëriñ bi wax na nu won ko ginnaaw ba képp ku ko def incha allah boo dajeeg Baye Fall yi danañ ko saafara bu dee si góor ñi col gi di weesuwul ñi nga xam ne dañuy sol ay tubay di ko wàcce ba si suuf nga xam ne tubay jën jiital day nekk sa biti wala nu sol ay xeeti tubay yu gàtt yoo xam ne dañ koy doxantoo si biir dëkk bi yenn saa nga dem ba si peggu jumaa ji gis ko sol tubay ju gàtt di dox di wër jumaa ji wala mu sol survêtement boo xam ne ab dënnam lépp ngi si biti loolee lépp bokkul ak war ma sëriñ bi nee na ñi koy def ñu bay ko te sant na njabootu Cheikh Rafal gi ñu taxaw ngir soññeente ak ñoom ngir ñu won loolu ginnaaw bi si dolliku mooy bépp xeetu yokk karaw wax nañ ko muy li dem si mees ak si ay gerefaas loolu nag sëñ baa ngi sàkku ñi koy jaay si dëkk bi jëkk ñu bàyyi ko ban koo jëndati ngir jaay ndax bu nu ko jaayut ñi ko bëgg duñ ko am fu nu ko jënde wala feneen fu ñu ko jëndee bu buñ ko andee si dëkk bi danañ xam ne ñoom ñii lii faggoowuñ ko si dëkk bi te loolu lu yomb saafara la mooy suñu bokk jigéen ñi lu jëm si mèche li jëm si ay greffage lu yokk karaw te bokkul ak li sëriñ bi digle loola nañ ko fas yéene woon ginnaaw ndax képp ku ko defut incha allah boo dajeeg noonu wala bu nu dajeek yow te daje bi mënta ñàkk ndax fas nañ yéene dootuñu jóg si terrain bi bu nu dajeeg yow da nga ko bàyyi wala boog da nga si daj loo xam ne loolee jaru ko bi si dolliku mooy lépp luy wàllu ay xërëm ñuy jëfandikoo ay xërëm si dëkk bi dañ leen saytu xool leen ba xam fu ñu nekk ndax sëriñ bi yàgg na see def ay soññee bëgg lool nu won ko ginnaaw ndax méngoowul ak lu yàlla gërëm méngoowul ak lu yonent bi gërëm te sëriñ bi moom lislaam rek la woote kon nag képp kuy ñaan na nga ñaan si yàlla ak yonent bi waaye bul ñaan si lu jëm si ay ay xërëm wala ak ak njibar loola sëriñ bi dafa wax ni nan ko woon ginnaaw ñi nga xam ne danoo yor ay moto di si togg ay jigéen ay ay jigéen moo xam ay xale yu jigéen moo xam ay mag ñu jigéen góor guy togg jigéen moom sëriñ bi nee na loola sopp ko bëgg ko si dëkkam bii nan ko nan ko wan ginnaaw képp ku nu dajeel nga di ko def la nga yor waruwaay ba nga yor des na ko nangu te su boobaa dootoo si jot incha allahu leneen li si dolliku mooy bépp njàngale moo xam ne day jàngale ku jëm si diine jàngale diine jàngale islaam ci ay téere wala ay ay ay ay mbir yoo xam ne dafa wuute ak njàngalem sëñ tubaa ndax sëñ tubaa moom mooy islaam lislaam rek la woote lii nga xam ne moom la indi si am njàngale si dëkkam bii si njabootam gii dara génn si lislaam kon képp koo xam ne dangaa sàkk weneen yoon wala dangaa sàkk beneen wet goo xam ne danga nga faa bëgg jàngale gu wuutee wala mu waroo ak sëriñ Touba ni nga xam ne noonu la peegee lii ba di ko ba jàngale ko sol ko si njabootam gii muy law ba nëgëni képp ku fi indi leneen loo xam ne danga nga see jublu na wala fab bi xale yi ba dugal leen si yeneen mi gëm loolee sëriñ bi nee na fépp fu ñu ko xam na fa njabootu Cheikh Fall gi dem su ko defee ñu dindi ko fa ba mu set wicc loola bokk na si li nga xam ne moom la sëriñ bi wax. li nga xam ne mooy saal sport yi si dëkk bi gis nañ ko ay ñoo xam ne dañoo tabaxi tabax def fa ay ay xeet yi euh, ñuy tàggat yaram. léegi-léeg nga dafa fekk ay jigéen ñuy sol ay yére yu xat nekk góor ñi di di dina dañuy tàggat seen yaram loolu it sëriñ bi nee na jigéen ñoo ñi aye na leen loolu buñ ko defati bu nu demati fenn fu nuy defee bariwu tàggatu yaram si biir dëkk bi loolu sëriñ bi tere na ko si dëkk bi ku génn defee ji ko fenn nag yaa xam waaye biir dëkk bi moom sëriñ bi sant na njabootu Seera Fall gi bu nu ko fi defati bu nu ko seetaanati li si dolli ko mooy football football it bëgg nañ ko lool te sëriñ bi wax na ba tey yaakaar naa amul benn tere bu ñu mës a tere te boolewuñ ci football te ñi koy def ay taalibe lañ yooyu ne sëñ Tuubaa rek la yaakaar kon nag bu fekkee lan wax dëgg la li sëñ bi bëgg nan ko def football yomb naa bàyyi su ko defee nu bàyyi ko si mag ñi ak si ndaw ñi fas yéene nañ njabootu Seera Faal gi fépp fu nu fekk kuy football wala nga di ko dundal ci biir dëkk bii daanu jëflanteek yow ba nga xam ne li sëriñ bi bëgg faaw mu am. lii nga xam ne moom la ñu lim nag di ay bunt yoo xam ne sëriñ bee nu ko tànnal wax nu ko ne nañ si soññente nañ ci laabirante sëriñ bi wax ne noonu nu ko waxee nañ ci laabirante ak bokk taalib yëpp ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal dëkk bi nun ñu jóg jëm sa ñoom ñu fexe ba ñoom ñu xam ko ñun ñii nga xam ne si ñoo jóg di demit ñu ne ñu xam ko bu wér ba xam ni loola si nun ñii la jëkkee waaye day jàll nag ba si ñoom ñëpp nag gannaaw ba nu sàkkoo nag bala noo agsi fi ñoom ñoom nañ sàmmonteeg loola te tënku sa ñu ne ñu ngi wax ni képp koo xamante ni kii ah lii sëriñ bi wax danga see wane ak fetteerlu wala nga lànk ne doo ko def dinañ jëflanteek yow nag jëflante boo xamante ni bii su boobaa di nga xam ne la nga nekk waroo saa nekk ndax loola mooy ndigal li lu sëriñ bi jox ñu fas yéene ñuy ñaan képp ku si nekk nga bàyyi ko bala noo àgg ak yow foofa ndax li sëriñ bi bëgg faw mu am te nun njabootu Cheikh fas nañu yéene amal loolee sëriñ bi bëgg mooy li sëñ bëgg danañ ko def képp koo xam ne kii nag da taxaw taxaw lu ne lànk ne doo ko def xamal ni danga nga dajeeg nun te daje ba ngay dajeek nun dana doon daje bu tàng jip su boobaa nag da nga xam ni loole jaru ko kon nag nangoo gën walis ñuy wañ sab loxo di la teg si aw yoon loolu moom la sëriñ bi waxoon nu nu nu nu wax ko ci wàllu lu jëm si wàllu liggéey bii incha allahu dimanche si suba danañ xëy tàmbali liggéey bi bi si dolliku mooy ndigal li jëmbat garab sëriñ bi waxoon joxoon ndigal li sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda waxoon ko ne ko corniche bii nga xam ne dañ fee dindi woon maa yi sëriñ bi dafa bëggoon nu jëmbataat fi ay garab mu doon mébét moo xam ne sax boobee nu ko defee rek la ko sëriñ bi bëggoon waaye fekk na booba am yeneen mébét yoo xam ne sëriñ bi da koo amoon ci corniche bi nga xam ni mébét moomu mooy ñaari yoon yi nga xam ne kenn ku ne dégg na ko si nun mu yéene ju Cheikh Modou Mountakha am si corniche bi mu def ko ñaari voie muy autoroute boo xam ne bii dañ koy aménager mu am si wet yi yi mu war a am yëpp ay trottoir ak lépp su ko defee kon da doon yell ñu bàyyi borom xam-xam yi saytu loolu ba féete boor ñu soog a xam nag. bu nu dee jëmbat fan lañu war a samp garab gi walis ñu di ko def foo xam ne bu ñëwee des koy dindiwaat liggéey boobee nag moo àgg na ba ñu ñëw jébbale ko looloo tax sëriñ bi daal di joxe ndigalul nag ni nañ jublu si jëmbat garab yi moom nag moo nu tànnal dibéer dibéer jii ñu jàpp ngir tàmbali liggéey bii nu sëñ bi santoon moom mooy dibéer yi nga xam ne si la ñuy jëmbat garab yi muy loo xam ne dibéer lañ koy def waaye nag gaawu incha allahu lañ koy tàmbali ndax boroom xam-xam yi booleel nga xam ne ñoom lan booleel si liggéey bi te dinaa leen tudd léegi da see bokk euh, lu jiitu sëriñ bi bi muy joxee ndigal li daf maa woo boole ma ak sëriñ Abibu Mbàkke mu Tuubaa si kanam ay ndawam a ngi nii ñoom nag ñoo am taxawaay mat sëkk muy sëñ Abibu ndax boobaak léegi sëñ Abibu noppaluwut pexe mu mu xam moom sëñ Abibu mi ngi si ngir li sëriñ bi bëgg mu am ànd ko mu am Cheikh Ibrahima ndax moom ab Baay Faal la moom la def boppam Cheikh Fall lay dund ñi mu àndal xam nañ ko nit ñi ko xam ñépp xam nañ loolu mooy sababu mu boole ñoom ñoom ñii garab yi nga xam ne moom lañ war a jëmbat garab yi lépp moo ko saytu lépp moo ko saytu ndax len li lépp lii moo ko joxe moo nu boolee kanu ko jox ku ñu wax Abdoulaye Saw moom joxe na ci lim bu am solo ku ñu wax sëñ Youssou Diop isbu tarxiya joxe na si lu ëpp junni moom Abdoulaye Sow joxe na lu mat junni ak juróom-benn téeméer si ay garab commandant bi nga xam ne capitaine bi nga xam ne moo nekk Mbacké di capitaine eaux fore forêt boole ñoom inspecteur eaux et bi ñoom joxe nañ lu mottali lim bi nga xam ne moom lañ yittewoo woon ndax li wër bi di 17 kilomètres la ñu multiplier ko par muy ñaari kilomètres muy ñaari wet yi. nga xam ne day am ak rang bu féete ndijoor am geneen rang féete càmmoñ loolu bu ñu ko seetee fanweeri kilomètre la ak ñeent mooy ñaari fukki kilomètre ak juróom-ñaar mooy fanweeri kilomètre ak ñeent fanweeri kilomètre ak ñeent yooyu nag dañ koo fas yéene jëmbat li ay garab mu mu topp mu toftaloo li dale si miiru kër yi buñ nattee juróom-benn wala juróom-ñaari mètre foofa la ñuy def garab yi ndax bu nu ko ëppee tuuti dañuy jege wet ga nga xam ne bu tëli bi ñëwee fa lay laal moo tax nu bëgg ko def foo xam ne bu tëli bi ñëwee du ko laal du ko jege kon dañuy natt juróom benn juróom-ñaari mètre loolu ñoom ñoo koy def ñoom waa eaux et dañuy topp si ñoom rek su ko defee diggante garab gu ne ak moroomam fukki mètre ak juróom ndax ay xay lañ ci fas yéene def ay garab yi xay danoo bëgg lépp doon ay xay am na yeneen garab yoo xam ne garab yi pénc la ñu koy wax ay tabac yooyu garab la yoo xam ne dafa day yaatu lool am ker gu yaatu waaye da dul màgg lu sori jëm kaw da dul kawe waaye garab bi pénc la garabu ker la garab yooyu am na si loo xam ne mbar na junni yooyu tamit dañoo bëgg topp pénc yi ak rond yi yooyu yëpp ñu def ko si nga xam ne garab yi daal mi ngi fi li sëñ bi bëgg nu def ko taaral dëkk bi ba mu mel na mu war a mel féexal ko tamit ndax xay moom li tax ñu tànn ko ñoom boroom xam-xam yi nee na xay dafay féexal ab dëkk ba noppi dafa am ker maanaam bari na tey dafay dafay garabu ndox ndox mi nga xam ne day day day dañoo dem napp bi xaw a jëm kaw xëy bokk na si li nga xam ne mën na ko supporter te dina ko dina ko atténuer loolu moo tax ñoom ñu tànn ko ñu ne moom lañ ciy def incha allah léegi nag gaaw incha allah lañu war a gas pax yi nga xam ne si la ñuy jëmbat garab ndax ñoom ñoo wax ni pax yi dañ ko war a gas tey bàyyi ko mu fanaan ba ëllëg ñu soog see jëmbat bu nu ko gasee dañ ciy def ndox ndox mu neex lañ ciy def su ko dee su ëllëgee ndox mi jàll ci suuf ñu ñu def si am na fridan produit yoo xam ne wutloon nañ ñu ko danañ ko wut ñoom ñu def ko si léegi nag liñ bëgg mooy ñu organiser ko organisation boo xam ne duñu am jafe-jafe mooy dañuy tàng juróom-benn groupe yii groupe bu ne kili ka ko jiite moom dañ koy tàng jox ko benn secteur mooy maanaam groupe bu ne daal secteur ba mu yor ci corniche bi groupe booba secteur boobu ñoom ñooy responsable secteur boobu léegi nag ka nga xam ne mooy mooy jëwriñ ja moom dañ koo am kuñ ko booleel si agent eaux et forêt yi day am kenn kuñ ko booleel si agent eaux et forêt yi nga xam ne kooka moom mooy jiitu di wax ndax waa Bambey dañuy ñëw waa Thiès ñëw waa Diourbel ñëw waa Mbacké ñëw ñoom ñooñu ñëpp bu ñu ñëwee nag liñ si jublu mooy jiitu si kanam ngeen ànd ak ñoom si liggéey bi waaye ñoom nee nañ liñ mënut mooy ngeen ñëw jiitu leen ak di def te du ngeen leen laaj neen daal bu ngeen bëggee mu jag ànd bii ñu sëñ bi digal nu ànd ko ñoom dañuy jiitu won leen ngeen topp seen ginnaaw groupe bu ne nag secteur ba mu yor moom lañ ko féetale bu nu ko jëmbatee secteur booba moom mooy wéy di ko saytu ba ba garab yi àgg fa mu war a àgg léegi danoo bëgg ñu tànn si kuréel gi ñoo xam ne ñoom ñoom ñooy dem di jëli garab ya fee nu ko teg sa kër Sëñ Touba di indi ci pàkk bi ak ñoo xam ne ñoom ñooy jël téye pax mu nekk fay taxaw téye di déglu agent eaux et bi ba mu ne ko defal nii ak nii ak ñoo xam ne mbuus yi mu nekk ñoo koy ramasser for ko ba bu ñu noppee ak mbuus du fi des ak ñoo xam ne ñooy arrosé ba mu tooy xëj gaaw nag li bëgg mooy kenn ku ne kuy ñëw nga indi peel ak barimil murit buy ñëw na indi peel ak barimil xam ne ñetti junniy pax la ñuy gas ñetti junniy pax moom lañ fas yéenee gas samedi incha allah huit waa eaux et dinañ ñëw. ñu am nañ buum yi koy natt ak piquet yi fu nu natt ne fii dañ fi gas kenn taxaw fa gas ñu jàll ñaari wet yi ñu làng ko ba wër corniche si ba mu daj gaaw lañ koy def bu dibéeree ñu xëy si daal di jëmbat si anam organisation boobu ñoom nag dañoo sàkku ni nan li ñu bëgg mooy nañ leen dimbali ba déglu leen topp seen ginnaaw te déglu leen ndax ñoom jàng nañ ko am nañ xam-xam bi te sëñ bi jox na leen ndigalul ñu ànd kook ñoom kon nag bu ñu ñëw di weranteeg ñoom mbaa ñu di leen jiitu mbaa ñuy def loo xam ne defloowul na ko bu ñëwee chef d'équipe bu ne dinaa la boole ak kenn si eaux et yi mooy doon sa interlocuteur nga yor numéro mu yor si ngeen di ngeen di jë jokkoo ba ba sa secteur di mat waxtu wu sa secteur matee bu la neexee nga dem dimbale ji keneen bu la neexee nga dem toog napp dall ci waaye li wër bi wër mooy la nga jëmbat secteur ba nga jëmbat yow yaay responsable ba groupe boobu ñoo koy saytu ba ba màgg ndox mu neexit lañ koy roosee nag deesu ko roosee ndox mu naqar ñoom nag dinañ indi matériel dinañ indi ay citerne dinañ indi ay ay marteau piqueur pour bu nu waree jëmbat foo xam ni dafa amoon dër bu dëgër lu ko bënn toj ko ba mu yaatu dinañ ko indaale dinañ indaale yeneen jumtuwaay yoo xam ne ñun dañ koy yittewoo ci loolu ñoom waa Eaux et yi moom sept dina leen bi fekk incha allahu samedi ak dimanche daanu ko ànd ak ñun ba mu jeex ñun nag li ñu warloo mooy indi peel ak baramin fu ñu nu ne gas nu gas leen ñu seet diamètre bañ nu gasloo nu gas ko ñu xam fan euh, xóotaay ba na muy toll nangam la ñu yem sa xóotaay boobee su ko dee buñ noppee pax mu ne man ngeen a jël benn murit ne ko taxaw si mu taxaw waaye bu mu jël garab bi mukk dugal si biir te amul ndigalul agent eaux et yi nga xam ne ñoom lan nu boole ñu war koo def liggéey boobu nag ni ma ko waxee léegi ñu ngi si àndal bari na ñii abi bu yabal looloo tax mu yabal leen sëriñ Moussa Mbacke ngi nii sëriñ Moussa Dieng ngi nii sëriñ Mame Mbaye nga nel noo ko ànd boobaak léegi su ko defee ñoom wane nañ ni ànd na noonu si liggéey ba mat sëkk te mboolem luy matériel bu nuy soxla ñoom ñun bu nuy soxla te Touba kanam am ko sëriñ Abibu nee ne lépp dana teew danañ ko ànd ak ñoom waa Hizbut Tarqiyyah ñoom matériel bu ñu am ja jumtuwaay bu ñu am daanu ko indi waaye nag sëriñ Abdou Karim mu sëriñ Fallou Makarimal Axlaaq sëriñ bi dama fa saa yónni woon ma dem fa waxi ko ko ginnaaw bi Cheikh Modou Mountakha wool ko boppam jox ko ndigal mu ànd ak sëriñ am di ànd ak ñun ci liggéey ba moom woote na ab wooteem sax moo jiitu suñu woote bii woo na mboolem ko di taalibeem ak ko di soppeem nee na ku mën a fanaan ci gaaw na nga fanaan ci ku ko mënul sept heures na la fekk fii dimanche incha allah kon nu xam ne ñoom lañ koy àndal buñ leen gisee ñu ne ñu ànd ñoom ci liggéey boobu xam naka jëkk nañ ko àndi woon fële lañ koy àndiwaat fii rek ñoo bokk pas-pas ñoo bokk ëllëg ñuy waxe ni fas nañ koo ànd tamit ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy nga nga commune Touba Abdoulaye muy commune Touba moom la sëriñ bi joxoon digal ne na ànd ak ñun si liggéey bi grillage yi nga xam ne mooy muur garab yi lépp saytu na ko ba teg ko suñu loxo ci valeur u ñaar fukki million ba ñu ngi koy liggéeylu tàmbali nañ ko fii si mbooloo mi bu amee ay menuisier métallique yu si mën dara man nañ see jàpp ndax menuisier métallique yi si dëkk bépp dama doon ñëw si ñoom ñoom ñëpp ñu si bari jox nañ leen ñu tàmbali di suude ñii ñu ngi koy def ngir jëmmi si Tuubaa Cheikh Fall ñii dañoo yëkkati dara jox leen ngir nu mën a defar gravion yi mooy ñetti cercle yi ak ñetti pays yi ak muur grillage yi pour dimanche lépp mën a noppi mooy 3000 ñetti junni ci ay ci ay ay gravion yoo xam ne mooy ëmb mooy grillage yi nga xam ne mooy mooy protéger garab yi kon ñuy sant mbooleem menuisier métallique yi nga xam ne jàpp nañ ci ci wet googu yi ak ñi nga xam ne wax dëgg yàlla donte dañ leen a jox dara jàpp nañ ci ndax liggéey la boo xam ne ñun dañ koo yàkkamti te ku bàyyi sa liggéey ñëw si liggéey bi kon war nga koo sant waaw am na si lu des loo xam ne nii séddaleeguñ ko waaye bu si am pexe bala noo jóge fii nag ñu dimbali wax nu ko su ko defee nga jàppale nu si. samedi huit heures ñun ñëpp fekk si terrain groupe bu ne te nga sol lii groupe bu ne secteur bañ la joxoon ñi nga xam ne ñoo yor poste ba. université si yëpp daal nañ fexe ba taxaw fa bala ñoo jóge fii dinaa leen booleeg ki nga xam ne moom ngeen di jokkool si eaux et nga xam ne bu ñëwee si yéen la jëm si wax leen la ngeen di def ngeen def ñu fas yéene def ko rek ci ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bu bëggee tey ñaan yàlla lépp jub yàlla nañu ko sëriñ bu nangul ndigal lii nga xam ne sëñ Muntaxa doy loolu la sëñ Amdi Fall jox ko ba ak njabootu Cheikh Fall bi ñu ñaan ci doole Cheikh Ibrahima yàlla na sama ba nu ànd ko ñun ñëpp defe ko ni ko sëriñ bi bëggee ci ab yar ak i teggin ak dal ni nga xam ne noonu lañ ñu xamee nun Baye Fall muy organisation ak méthode discipline loolu lañ xam si nun loola nag lañuy woo ñëpp ñu maase tënku si ñuy ñaan bu kenn dox doxeen wuñ lay soññee kenn dox doxeen wuñ lay rappeler à l'ordre ñu ngi koy sàkku si mbooloo mi yëpp di joxe rendez-vous nag gaaw incha allah ci li wër corniche yëpp nag